ñu bind ci lool am mbir moo xam ni nag ñoo ngi koy waajal fii ci Sénégal muy daganal mbiru góor jigéen ci fii ak 2026 danaa ci dikk léegi document bi mi ngi nii ma yore gouvernement bu Sénégal war koo def ci turu askan wi mu doon lu tiis doon lu doy waar ndax ku xam lan mooy ak ngóor jigéen ak ni mu bone ak ni ko askan wi bañe ba tax na amul turuñ koy tudde lu dul dañuy boole tur wi ak wee rek woowee ko ko kon nag loolu suñ koy def ci turu askan wi yell na ci askan wi xam ko rawatina bi nga xamante ni am na juróom-ñetti weer ci ginnaaw sëñ Muntaxa lañ dem waxtaan ci ak moom leeral ko mbir mi tamit fi mu toll mu digal ñu ni nangeen ngeen wër Sénégal ba mu yegg gox bu ne dem leen fa leeral nit ñi dafa am yu ci soxla leeral askan wi yépp lii ngeen ma leeral ba mu leer ci seen bopp su ngeen ko defee ba noppi ngeen dil si wat ci man kon lii ñuy def benn am nañ ci ndigalal Serigne Mountakha muy ndigal loo xam nit dafa fedd li ndigal loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko joxe woon ci képp koo xam ni gis nga loo xam ni munkar la ñetti taxawaay ya ca war defees ko ñun nag néew nañ doole ci dindi loolu wala ñu arrêté processus bi waaye nag xam nañ ni sénégalais yi ñoo bokk réew mi waaye it ñoo bokk diine ji ba tax na li ñuy def ci seen tur ñun suñ ko xamee yàlla na ci ñu yegg ci ñoom leeral leen ko bañ bokk ci gis-gis ak xam-xam ak war cee bokk taxawaay mbir momu ñuy wax mbirum borom ñaari tur yi ku nekk bo déggé ñu ni homosexualité xam nga li ñuy wax lan la waaye nak du lor rek mo koy tektéré fu ngeen dégg ñu wax LGBT itam LGBT xamal ni homosexualité la ñuy wax wala buñ i LGBTIQ plus mbirum góor jigéen la ba tey muy lesbianisme gay, bisexuel, transsexuel, intersexué, cœur ak yenen yudul yoy. ba ci nécrophilie ak zoophilie lenn lu ci ne ci la bokk Waye itam Nations Unies dafa yëkkati programme bo xamni mom man na jëfëndiko jëfandikoo baat yee sax waye nim ko tudde moy orientation sexuelle et identité de genre su ngeen xoolee document bi ñaari xëtt yi ci njëkk nga xam ni mbooleem fu ñu fi dem ci fukki fan ak juróom-ñaar yi ñuy dox ci biir réew mi yépp fu ñu fi dem document bi bàyyi nañ ko fa def nañ ko en arabe aussi ngir ñi nga xam ni arabe lañ mën a jàng ngir ñu mën a xam li ci nekk le commité de droits de l'homme de nations uni moom moo tënk ci document bi xam le ni lan mooy àq ak yelleefu doomu aadama lan mooy àq ak yelleefu góor jigéen yi ndax boddi gi ñuy boddi góor jigéen yi lu yell la ci àdduna bi yan jafeñ-jafeñ la ci Nations Unies am ngir fexe ba nit ñi nangu àq ak yelleefu góor jigéen yi ana it lan recommandation la ci Nations Unies waxe ak yan obligation wala bokk yan ndigal la Nations Unies gàll mbooleem état yi ngir ñu tegoo ko ngir mën a daganal mbirum góor jigéen mooy ñaari xët yi nga xam ni moo jiitu ci document bi bu loolu jàllee ngeen gis ni ñoom xisbu seytaan ni ñu déggee ñoom nit ak luy ak la déclaration des droits de l'homme et du citoyen bu 1789 amoon ca France Gilbert Moutier de La Fayette bind ko bokk ci xisbu bokk ci it yi ci gënoon a ndax na ci degré moom mooy ki bind article yooyu ci ak doomu aadama ci ban occasion ci jamono boo église bi ak loge France bi ñuy def seen révolution ñoom ci lañ bindoon déclaration boobu mbokk yi ñoo déclaration boobu askanu Sénégal d'abord ba pare ndax constitution bi ci préambule bi le peuple sénégalais souverain tàmbali di ko convaincu nangam

li ñuy wax CIM muy la classification internationale des maladies nga xam ne dañoo bindoon ay feebar muy paludisme variole varicelle ak yeneen yu dul yooyu boole woon nañ ci homosexualité waaye le 17 mai 1990 la Nations Unies retiré homosexualité ci feebar yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi ñu teg ci ñetti at ñu daje fële ca Autriche ca Vienne plus de 7000 participants ñu ne nañu liggéey nag ci ñii nga xam ne dañ leen ak am fuñ leen dugaloon te léegi xam na ni li leen dal du feebar dañ leen di boole ci askan wi seen àq ak yelleef nan lañ ci war a mën a vingt ans document boobu aussi mi ngi fii dugal nañ ko ci biir muy la déclaration et le programme de Vienne xam naa damay tënk ndax waxtu wi dafa xaw a damay bañ mu ñett ma bi ko defee jëmmi 1993 ci Vienne am na lu am solo lu bàyyi ko ci jataay boobu ni ko Ban Ki-moon waxee moom mi nekkoon secrétaire général bu Nations Unies dafa wax ni seen ndaje moomu ñu am ca Vienne may na leen li amoon li jiitu 93 nga xam ni kuréel day taxaw nee ni la man li ma gëm mooy sama diine li mu wax geneen kuréel taxaw nee ni la man ci xel lay jëfandiku nee na barrière bi doxoon seen diggante Vienne Autriche lañ ko màbbe mi ngi ci document bi bu ngeen ko xoolee da ngeen ko gis 1993 nee na loolu moo tax àq ak yelleefu doomu aadama rek mën a daal di jël formam yu am solo dootul yem ci ay euh, àq ak yelleef yoo xam ne dafa yu civil la wala yu politique kese waaye dana dem ci culture léegi dem ci politique dem ci yeneen i fànn ñu mën koo boole te benn du ci dem wàcc morom jëm bi loolu jàllee ñu dem ba 2005 wax naa léegi ni le 17 mai 1990 la Nations Unies retiré mbirum góor jigéen ci feebar yi déclaration bi ma doon wax léegi mi ngi ak programme bu fi 2005 kuréel gi nga xam ni IDAHO muy International des Against homophobia ...d'ailleurs, def mu ñu teunk sen kurel gogu ci ab ONG 2006 ñu lancé une pétition internationale pour dépénaliser l'homosexualité 2006 déposé aux Nations Unies réew mu ñu demet dañuy xol ana homme de lettres yi sportif yi euh, ñi nga xamni xam renommée internationale ñooñu ñu signé leen seen pétition boobu ngir buñ koy jébbal mbootaayu xeet yi ñu mën koo xamal ni nit ñi gën a ràññiku ci àdduna ñu xam ñu am jaar-jaar am lu def ca ni yëngu ñoo ni nañu dépénaliser homosexualité IDAHO 2006 la ko déposé Nations Unies bi mu ko déposé Nations Unies nag France ak Pays-Bas ci en 2008 daal di def benn requête saisir Nations Unies ni ko faaw nga tontu ci lii te liggéey ci ngir góor jigéen ñi dañoo war a am àq ak yelleef loolu ñetti at la ci Nations Unies liggéey daal def la résolution 2011 ngir ne léegi nag am na ay àq ak yelleef yu yees de nouveaux droits en 2011 la ko Nations Unies proclamé mu donne une résolution aussi contraignante bi loolu amee. xam ngeen ni kon àq yelleef yu yees am na yañ déclaré woon 48 la kon yu yees yi 2011 la bi mu amee Nations Unies liggéey document bii ni ñun ñëpp bi ñuy ganee àdduna ñoo bokk yem diirub liñ fi sax aussi ñooy bokk tolloo ci àq ak yelleef daldi jël juróomi ndigal yoo xam ni gàll na ko état yépp bi ci njëkk mooy cinq obligations juridiques fondamentales des États concernant la protection des droits de l'homme des LGBT document bi Nations Unies ñoo ko bi ci protéger les individus contre la violence homophobe Nini, ni gàll nañ ci kaw état yépp ginnaaw góor jigéen ñi léegi am nañ sañ-sañu génn ci biti li ñépp sañ sañ nañu kon nañu dox seen diggante ak ñi leen bañ ba pare mooy warteef bi deuxième obligation de moi prévenir la torture et le traitement cruel inhumain et dégradant des LGBT Nous ni vu gis nañ ni lu ni nous la yonent bi sallallahu alayhi nous les wax ni fu vu ñaari nous vu Nous nous neen vu koy Nous nous vu ñu la obligation bi vu moy dépénaliser l'homosexualité dama dul am bana dugg ci ki waye ku lire lepp article yeeg li liñ ko tëral yëpp mi ngi ci mi ngi ci document bi ku ko yër dang ko xam té amna en arabe aussi ñi fi jang arabe dañ leen ko yónnee inshallah ñu mën ko jang ñentel bi nak mbokk yi ñun muy bi ci gëna intéressé moy interdire la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre moy nañu téré boddi gi ñuy boddi góor jigéen yi ndax nit ki mën nañoo xam ne ay góor jigéen lañu ñu ni kat li lislaam waxoon sax bu ñu ko defate ci ñoom waaye nag man bàyyi naa leen du ma jëflante ak ñoom loolu la Nations Unies wax ni loolu kenn sañatu ko nañu gàll ci état yi ñu fexe ba ku nekk di jëflante góor jigéen yi maanaam sañatoo bañ a jëflante ak ñoom kenn dootu leen boddi mooy ñeenteelu ndigal li danaa ci ñëw léegi document bi ci Sénégal liggéey aussi ci lii la basé wu ñeenteelu ndigal li juróomeel bi nag mooy góor jigéen yi am nañ sañ-sañ yëkkati seen kàddu am nañ sañ-sañ ci def ay mbootaay waaye am nañ sañ-sañ yi tamit ci daje di nos ak a nocc mooy juróomeelu obligation bi Nations Unies defee lii nag daal di teg benn mécanisme ñu koy wax EPU EPU mooy examen périodique universel nga xam ne dañ lay saytu biñ la saytoo bu waxtu wa delsee ca déwén sa nga dëkkuwaat ñu saytu la te loolu tamit lu wërngal këpp àdduna la fii may waxe ak yéen Sénégal ma Nations Unies fi mu nekk nii ci EPU bu 2020 war a dem wuy ji Nations Unies ak ndigal yi ñu ko joxoon lan la ci def lu mu ci defagul lu mu ci tàmbali te yëggagul loolu lépp ñoom ñu xayma ko su ko defee joxaat ko yeneen ndigal yu yees bi Nations Unies defee lii nag document bi lii EPU bu 2013 la bi Sénégal demee Nations Unies fekk na jox nañ ko 188 recommandations ak ñett fukk ak ñett ndigal 33 yu njëkk yi Sénégal dafa wax ni na ci sans réserve 119 recommandations yi ci Sénégal wax ni yenn yi ko sax yi dem di ko d'accord na am ci fukk ñeent yoo xam ne nag Sénégal dafa wax ni du ko def duma ko def ndax xam naa ni sama askan d'accorduñ ci loolu loolu lépp mu ngi nii ci li ñu ko wax ndigal yi ak fukk ñeent yi lan la woon ak tontu li ci Sénégal tontu mi ngi ci biir document bi. bi loolu amee bokk na ci li Sénégal gàntu woon ni du ko def mooy mbirum góor jigéen du ko légaliser mukk ah Nations Unies nag bi jataay bi jeexee ñu ne Sénégal réew moo xam ni ci yalwaan daanaka lay dunde yaakaar ñu ngir ñu financé ko di ñu leb ay bor wala bokk leb ay suñuy banqaas bor moo xam coopération bilatérale wala trilatérale bi la kon nan la mën a gàntoo lu mel nii ñu daal di activer seen i levier ñu daal di tàmbale xoj Sénégal di xoj gouvernement bi ni leen nag dellu leen ginnaaw ci li ngeen waxoon ci mbirum góor jigéen loola moo waral président bu États-Unis dikkoon fi wax ni nañ dépénaliser mbirum góor jigéen président tontu ko ni ko pareeguñu

mu wax ni Sénégal am na ay góor jigéen Sénégal am na ay góor jigéen journaliste bi ni ko waaw bu fekkee am nañ fa ndax sañ nañu ak kuréel yi leen di jàppale wax ci am pénc yëkkati seen kàddu ak woote ci seen mbir mu ni ko waaw sañ nañu ko mu ni ko sañ nañu ko mu ni ko waaw sañ nañu koo def mu ni ko mbaa dara du leen ci fekk mu ni ko xaw ma ndax dara dana leen ci fekk am déet waaye la leen ci fekk du bàyyi ko ci gouvernement bi seen diggante ak askan wi nag loolu beneen mbir la loolu moo tax nit ñi war a am woyof te xam ni askan yi bokkuñu fu nu jaar bokkuñu tamit euh, mbatit bokkuñu tamit nu ñuy màggee ak nu ñuy doxe te loolu yi tamit mënees na ko wax ci wàllu siyaasa ci politique loolu moo waral su fekkente ni mbir mu mel nii yéen lijjanti ngeen ko ci ab loi ñeneen ñi dañoo soxla ñu muñal leen

parce que la C'est pourquoi je dis encore une fois, les gens doivent avoir le monde esprit de comprendre que tous les pays ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes histoires, n'ont pas les mêmes évolutions. Et chaque pays a son propre métabolisme. Ça, on le voit aussi au plan politique. Alors, si la question de la de la dépénalisation de l'homosexualité se pose, en France, vous l'avez réglé d'une certaine manière par une loi, mais ailleurs, ça prend plus de temps mais ailleurs ça prendra plus de temps France règle la loi ci 2013 Mais ailleurs ailleurs googu ci le Sénégal ça prendra plus de temps waxtu wi muy wax lii booba Sénégal ñu ngi document bi la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre ministère bi nga pas ni moo yor wàllu a gi moo ko de ko Nations Unies ak yeneen les partenaires jàppale leen ci alal ak xam-xam ailleurs ça prendra plus de temps document bi sur 10 ans 2016 ba 2026 ci ñom ci une prévision góor jigéen dagan Sénégal non pas dagan kese da fay weesu lool ndax bu ngeen démé ci vision document bi dafa wax ni faire du Sénégal un pays émergent en 2026 avec une société solidaire dans un état de droit sans discrimination ndax yéen ñi fi tok te kenn ku ci nekk jëmm yàlla nga tax mu tok ci néegu yàlla bi xam ngeen fi Sénégal ku mu fiy boddi kun fi boddi ci paskan askan wala xeet wala pas-pas est-ce que xam ngeen ko ci Sénégal amu fi Sénégal kenn wu fi kenn kon lan moo tax gouvernement bu Sénégal war a liggéey ci 2026 société bu amul boddee moo dëppoo ak ñeenteelu recommandation Nations Unies bi mu wax léegi moy société bo xamni ne discrimination dootul am bot di kenn dootul bot di kenn parce que ñi ñu ciblé té ñu ay sénégalais tay nek Canada wala ñu dem laqju États-Unis wala Maroc wala fenen ci Europe té wara a delsi ci réew mi li imam bi sañ sëriñ bi sañ ko kenen sañ ko ci mbedd mi ñomit ñu war ko sañ té ken du len botti lolou le document bi di préparer fim nek ni lu ci nek nak dama dul am temps wu dugg ci faram faccé ko ci walu yo nak lu ci ne fan jaar waye li té li ñong koy signé ci turu askan wi ñaareelu acte bi gouvernement bi tek moy ban Moi, ci 2016 nouveau droit yi ma leen di wax inscrire nañ ko ci constitution ndax droit de l'homme lu jëm ci droit de l'homme xam ngeen ni liñ ci xam déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ci ñom nañ ko déggee sax ñom ñom 1948 le nouveau droit yi 2011 la fii bu ngeen journal officiel du Sénégal la la loi constitutionnelle numéro 2016-10 du 5 avril 2016 portant révision de la constitution mu am fukki tomb ak juróom ñeenteel bi mooy lan la reconnaissance de nouveaux droits kon mel na imam ñëw mbir mi moom 2026 incha allah dana dagan ci réew mi bu ñu ko arrêté wul te askan wi rek mën a jóg jàppale gouvernement bi pour ñu arrêté ko ñu wane nii lii bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu mbirum njaboot gi ak mbirum banqaas yu bari yoo xam ni góor jigéen ci la bokk muy genre ñoom nag danañ wax ni genre approche bu scientifique la boo xam ni dafay mën a permettre bu ñu demee ci gox fekk na ñu féetewoo koom-koom ak suqalika ñu jàppale ña ci des ba ñoom ñu mën a loolu bu fekkente ni loolu mooy genre bu fekkee loolu bu fekkee loolu genre permis de conduire bii kon sama permis bii lan la ci genre si kon bu approche scientifique kese buy mën a permettre ñu réserver ay gap yu am ci ay nit ci ay lan de conduire te lii depuis 2018 la ko gouvernement bi dogal permis de conduire yi li ci daan nekk mooy nit ki su paasee ba ñu xam ni mën naa dawal ñu jaarale ko ci théorie ak pratique ah dañ koy photo jël signature am ni ko noo tudd xam turam xam turu ndeyam turu baayam ba noppi ni góor la wala jigéen muy sexe waaye léegi genre lañ ciy def ndax genre nuru na góor genre nuru na jigéen genre autre mën naa doon góor mën naa doon jigéen mën naa doon leneen lii ngi ci fi nek ni, nii fi ni, mon nii d'or. mooy dox ku fi am permis de conduire aussi nako nako vérifier kon loola mi ngi dox gouvernement mi ngi dox jëm ci 2026 pour mbirum goor jigéen dagan ci Sénégal non pas dagan fi sax waaye kenn dootul sañ baña bañ ak goor jigéen manam dootul leen sañ a boddi boobu mooy bi ci gën a dangereux su ko ci 2017 la 2018 ci lañu ñu jël dogal ci def loolu ci permis de conduire 2019 ñu jëlaat beneen décret muy le décret 2019 787 bu 17 avril 2019 ministère bi doon toppatoo mbirum jigéen ak njaboot ak mbir yi nga xam ni góor jigéen ci la bokk muy genre ñu tofal ko it mu war a aar ndaw ñi xam-xam la ndax bëgg a yàq aw askan ci yent yëf ngay jaar da ngay fexe ba nit ñi xaw a xiif mbaa ñu xiif nga xam ni ku xëy li ngay njëkkatal mooy li ñuy wax euh, boo demee ci pyramide de Maslow maanaam da li ngay njëkk a yittewoo mooy loo def sa biir d'abord ba pare nit ñi bu ñu xiifee te amuñu xam-xam bu leen mën a may njariñ njariñ bu am njariñ bu nu mën a jóg léegi jariñoo ko xam-xam bu théorique rek la am maanaam mën nañoo wax rek ñooñe duñu gaaw a génn ci jafeñ-jafeñ leen tënk rawatina soo jaaree dolli ci ci seeni ndaw ak i jigéen loo bëgg mu yàqu jaaral ci jigéen ak ndaw soo ko defee da nga ko am léegi ministère bi toppatoo fi mu ne jigéen ñi toppatoo njaboot gi mooy toppatoo mbir mi toppatoo it la protection en fait de l'enfance depuis 2019 waaye ba tey 2019 boobu ci la lu mësul xew Sénégal xew fi muy li ñuy wax Gay Pride Gay Pride mooy la fête des fiertés mooy fête gi góor jigéen ñi di def chaque année tàmbalee ko États-Unis léegi àdduna sépp dañ koy def nga xam ni dañuy yëkkati nii

samp ay daaraam samp ay école am yor ay jumaam am mbooloo mu bari ñuy ànd ak moom tàmbali di tas ci biir réew mi dama jël exemple France rek mais imaam góor jigéen yi bari nañ léegi ci àdduna bi nga xam ni bind na téere boo xam ne mi ngi ko tuddee le Coran et la chair nee na ci biir téere bi jullit yi ñoo déggul diine seen diine waaye bu fi sallallahu alayhi wa nekkoon ba tey jii maye na góor a góor ñu sëy loolu mooy liy yot réew mii fii ne Sénégal waaye lii bu ñu sàgganee ba mu am fi ñun bu ndajeek Cheikh Ahmad Bamba lan lañ koy wax maanaam sëñ ak njàmbaat ga ak fitwa ak jom ja ak bëgg yàlla ak yonent bi doon na ma dalub lislaam ak li mu bàyyi fii ci tedd nga ak teraanga ak yiw woo xam ne àdduna sépp ñee nañu bu ndajeek moom sàggan ba lii di dox ci réew mi lan lañ koy wax bu ndajeek yonent bi sallallahu alayhi wa lan lañ koy wax wan lay la ñuy mën a am bu dajee ak borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ni moo ñu gàll ñu am masuliye ci kaw suuf lii am na daaw senegal ci Colobane la amee woon le 5 juillet 2019 concert boo xam ni t bi Angleterre la jóge drapeau góor jigéen ñi ñu def ko ci

Nous wax ni le Sénégal célèbre le Pride 2019 à sa manière lors de la victoire à la Cannes 2019 contre l'Ouganda tous les moyens sont bons pour se faire entendre néna Sénégal ñu bal ma ci bat bi may jëfandikoo ou na wala magal na wala fi mom la gëna xam magal gi ñëk muy magalu goor jigen ci 2019 waxtu wi Sénégal di dajé ak Ouganda waye yépp kay baax na ngir ñu dégg suñu bir li tax ñu ñëmé ko beneen bi ci des mooy góor jigéenu Europe stop homophobia ñoom ñoo def tweet bi le 6 ci fajar vers 6 heures du matin bi concert bi jeexee ñu wax ni félicitations à toute la communauté LGBT plus sénégalaise et à l'artiste Wally pour son engagement et son courage en dépit des injures et menaces qu'il continue de recevoir pour avoir arboré un t-shirt arc-en-ciel en soutien nous sommes à vos côtés

loolu nag dafa am lu muy tegtale mbokk yi dafa am lu muy tegtale ndax damay wax toujours ni Sénégal am na fi jëmm joo xam ne ni ñu ko war a jàngate jàngate wuñ ko muy Cheikhul Khadim li tax ma wax ko mooy bi muy dajeek tubaab bi waxuma ci baatin de waaye ci saayir julli taxul woon tubaab bi jàpp ko ndax sañ tubaab indiwul julli ci Sénégal fi la fekk nit ñi julli ak a sëlmal woor taxul ñu japp ko ponki diine yi ñu wax ñu xam ko taxul won tubab bi japp ko mu jotté tubab bi taxul won du won sikkat du won jang alcorane ak jangale ko aussi parce que damay fatli, toujours ni la loi de fédère de 1857 loi bobu limu mu ak serigne bi ci bari wul ñenti at lañ magan lañ lañ lañ jitonté ci aduna serigne bi wax nañu 1853 la fi la gane aduna loi bi 1857 la ñenti at après te loi boobu moo doon organiser njàngaleem alxuraan tubaab bi ba ñu ko jàng alxuraan xam nga tubaab bi lu mu bañ ñaari yëf ma wax leen ko tey benn bi mooy defal yàlla sa kilifa waaye amal geneen kilifa gu yàlla aussi boole leen loolu rek mooy objectif am na nga fexe ba am kilifa goo xam ne du yàlla donte da ngay am yàlla muy doon sa kilifa waaye boole ci geneen kilifa loolu mooy objectif am su ko mënta am nag na fexe ba ndigali yàlla yi nga tënku muy sa kilifa boole kook ay tereem ci loo xam ne sañoo koo bañ di jëf lu yàlla digle waaye di def lu yàlla tere te sañoo koo bañ loolu mooy seen objectif lii moo ko boole ak sëñ Touba. moo tax bu ngeen demee ci procès verbal ndax booba ñoom séddoo nañ Afrique ci conférence de Berlin ci 1855 1854 1884 85 plutôt bi ñu séddoo Afrique sos li ñuy wax Afrique occidentale française 1895 même année boobu ci lañ jàpp sëñ Touba ba tey man damay interpeller les intellectuels sénégalais. lan moo waral nit ñi defuñu ay gëstu ci loolu ci at mi tubaab bi ni damay taxawal sama doole fii ci Afrique ba Niamey wala Niger ci la jàpp sëñ Tuubaa joteeg moom lan moo ko waral parce que ku taxawal autorité lu toll noonu da ngaa bëgg kilifteef sa kàddu dox te xam na ni seetlu nañu depuis Mbàkke Kajoor ba ci sëñ bi dem Mbàkke Bawol Daaru Salaam ba ni mu dikkee Touba gis nañ ni ku nekk ci ron sëñ Touba bu fa jógee kenn du ko yilif ko dul yàlla gis na ni ñooñu kenn mën leen a wëlbati lu dul ci leen sëñ Touba joxoñ ci la nga xam ne sëñ Touba mii daf leen di bloqué daf leen di gérer bu ñu bëggee asseoir seen autorité il faut ñu écarter ko moo tax bu ngeen demee ci li ma leen wax c'est scientifique procès verbal numéro 3 bu conseil privé dañuy wax ni le conseil privé après avoir entendu les rapports de Merlin et de Leclerc Merlin moo ko jàppali ji woon Leclerc moo ko jàppi et fait comparaître Ahmadou Bamba a été d'avis à l'unanimité qu'il serait lieu de l'internet au Gabon jusqu'à ce que l'agissement

ñu seetaan ba ñu war a dégaliser góor jigéen fii ci Sénégal gii kooku bu ñu dajeek moom lan lañ koy wax wan lay lañ mën a am ci kanamam laa laa xamul ba tax na kon lii moom moo doon waxtaan wi ni ma ko waxee ci sama njalbeen sëñ Muntaxa waxtaan nañ ceeg moom mu ne ñu nañ wër réew mi yépp leeral ko fépp fukki fan ak juróom-ñaar ci tey jii ñoo ngi nii xamuñu suñu kër lu fa xew ñoo ngi ci àll bi dem nañ ba Fuuta Ferlo dem nañu ba Wuro gi ak Matam démb ñoo ngi Tiwaawan bërki dem ñoo ngi woon Kébémer la ko jiitu ñoo ngi woon Louga noonu lañ ko toppee 45 département yëpp incha allah fas yéene nañ koo def kon nag ñu xam ni yëf yi mi ngi dox te ci suñu tur lañ koy def ma jàpp nag ni képp koo xam ni yaa ngi seetaan ab safaan ñu koy wasaare li ci yonent bi wax ñun ñëpp xam nañ ko ñetti tolluwaay yee ci am te yaakaar naa ni tolluwaay bu mujj bi moom mag ñi nga xam ne màggat nañu amatuñu kàttan xëy na ko a def yonente bi loo xamoon xam na ko am na cër ba ca yàlla ndax loo ci am ci moom la jaare te terewul wàccoon na ci terrain bi mu sallallahu alayhi wa sallam man de loolu laa jàpp koo ma la doon rek foo jàpp ni yegg nga fa ci yàlla yonente bi yegg na foofu ndax fa nga yegg ci cër bu yonente bi nga ko defe te terewul terrain bi moom yonente bi taxaw na ci kaw terrain bi ba ñu gaañ ko damm bañam kon yëf yi taxawaay la laaj maanaam laajul fitna laajul dara waaye li mu laaj mooy askan wi wane ni ñun bëgguñu ab ngóor jigéen ci Sénégal

ñi nga xam ne ay notable lañu nekk fi ñu xam leen ci Thiès it ñu signé ko ba ñu xam ne ñii ñoom ànduñu ci lii te bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg loolu nag dana doon aw lay ëllëg dana doon aw lay ci kanam suñu borom waaye tamit dana doon luy dimbali gouvernement bi ngir bu leen tubaab bi bëggatee poñe ñun leen gis ngeen suñu askan ñoo bëggul lii ñoom ñoo ñu jox bataaxal bii nee nañ bëgguñu ko tey bëgguñu ko lii rek moom moo doon suñuy tànk ñoo ngi dellu di euh, jéggalu ñëpp والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته